Euh, président Bougane Gueye jaar na fi tey euh, mu nekk occasion bu nga xamante ni nii dama ci bëgg a profité remercier militants yi nga xamante ni nii ñoo nekk gëm sa bopp. remerciement yi nag amul vraiment fu mu yem am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem moo xam ñi nekk Mbacké ak ñi nekk Touba ñoom ñëpp jàpp nañ ci ba bis bi jàll ci jàmm. président nag Mbàkke doon woon destination ça il faut que ma préciser ko dafi doon jaar comme ni nga xamante ni nii la jaaree woon ci yeneen département yi ba nee na ma sax nañ ko may file fukki fan ak juróom ma ne ko lu tax mu ne ma damay delsi mu ne ma damay delsi parce que Mbàkke ma ne ko waa mu ne ma sama bakkan bi laa ci teg gis na coono waa dëkk bi yàgg nañ ci waxtaan am na programme parce que dans son programme national daf ci am vole développement territorial bu am solo te loolu dafa bëgg Mbacké profite aussi à travers ma candidature parce que man la investir te am nañ yaakaar ni ni nga xamante ni tàmbalee nañ ko liggéey bi bu ñu ko continuer nii yàlla mën nañu defal tawféex situation wu Mbàkke nag defe naa ni euh, daanaa ko faral di wax souvent dafa mel ni tawatu màggat foo laal day metti xam nga Mbàkke actuellement lépp priorité la te bu pri bu fekkee lépp priorité la fi ngay mujj commencer mooy li vital parce que lorsque tout est prioritaire il faut absolument s'attaquer à ce qui est vital li nga xam ni nag moo vital mooy li nga xam ni daanaka bakkan aaju na ci te Mbàkke yàqu na yàq boo nga xamante ni nii. ça fait plus de presque vingt-huit ans parce que vingt-quatre ans la ko yi euh, euh, Guèye yoroon l'ancien maire yàlla na ko yàlla yërëm mu ñëw le maire ab Abdou Mbacké ndaw yoraat ko cinq ans Macky Sall delloowaat dollil ko ñaari at sous prétexte la Covid-19 donc muy sept ans ci kaw vingt ci kaw vingt-quatre ans yooyu ñoom ñaar ñëpp boo leen boolee amuñu benn réalisation bu ñu def ci dëkk bi amuñu benn programme politique bu ñu defendre ci dëkk bi kon dafa doy moom laa doon wax léegi ba pare président Macky Sall dafa def erreur bu nga xamante ni waa Mbacke duñ ko ko baal mukk parce que fukki at ak lu topp mu ngi nii mu yor Sénégal fukki at yooyu ak lu topp mu ngi dajale alal ju bari di ko ñuux ci région yi di développer jox goxaan yi te Mbacke bokku ci maire yi fi jot a nekk yëpp. mu tënk leen ñu ànd ak moom y compris maire Abdou Ndaw te defalu ko dara léegi mu jël liste euh, liste euh, euh, parallèle yi def fukki liste mbir Mbacké parce que candidat yi ngeen di gis yëpp à l'exception de gëm sa bopp ak Yewwi Askan Wi ak wàllu ñi si des ñëpp Macky Sall moo leen jox caution bu leen ko joxul ay ñoñom ñoo leen jox caution parce qu'en 2014 El Modou Gueye tu es témoin candidat laa woon boobu caution amul woon juróom-benni parti lañ woon juróom-benni candidat bi yoon caution am ñuy laaj quinze million ci mairie bi quinze million ci département bi mu mu jox ñu am fukki candidat ak ñett fu ñu jëlee xaalis bi président Macky Sall moo leen ko jox mel ni li mu yàq dëkk bi doyul dañ koy xeex loolu le président Bougane Gueye ñëwoon fàttali ma daf fi jaar rek nee na ma je te rappelle qu'on a un un grand combat à mener waa ji ci kaw il faut ñu daaneel ko. te ci maire bi la tàmbale bu ñu jógee foofu dañuy dem ci élection législative yi cinq députés le département bi war a présenté dañ koy rafler incha allah parce que gor ñi nga gis ñu toog liggéey nañ ko ci département bi kon président Macky Sall dëkk na mbër moo xamante ni nii bu mu ko xeeb Bougane dina ko terrasser boo demoon tey ci stade bu buñ ne ëpp jaan-jaan yi match ba yàqu moo tax Bougane ku ko xeeb xeeb nga sa musiba loolu nag tasum kanam borom moo koy fajal boppam waa Mbacké je lance un appel nañu xam ni list parallèle yooyu xàmmee nañ leen ñoom ñëpp président Macky Sall la ñuy yalwaanal bu ñu paree ci mbatt même mbatt bi lañ koy sotti bu ma sàmb duggee amut ma ma dem ba dugg mu mën a am dara ndax xam na ni mbir mi raw gàddu la kon nañ leen identifier ñoom ñëpp seen masque yooyu nañ ko waddal ba ñu xàmmee leen ñu sanctionné leen man nag bulletin bii ma yore. na ko gars xam ak jaune bi mooy soppi Mbàkke mooy soppi assemblée nationale te moo nar a soppi Sénégal incha